الحادي محمد مخلوقين خلف يا متولو أسلام دادف دادف كيت الأمدان خليفة لو gàtt gàtt daa génnee loo xam ne dana mën a jëriñ nit ñi waaye jëriñ boobu sax moo ñu fi tax a toog amu fi kenn koo xam ne taxawaale moo la yi ñi ñëw ñëpp kenn ku ci nekk rek daa xam li ko tax a jóg mu ñëw fi waaye bàyyi ni sax ay yitte ñëw fi ndey sëñ Mansour la mu daan wax ni alaa daw mi nee na tey si per alaa daw mi moo fi xew sëriñ Mansour allah doome la daan wax Saloum Diané nee na tey moom si père allah la ko waral nee mbokki boppam fu mu juddoo muy tasaanam nee ñëpp ñëw ñu ngi nee ci tànt bi nee baayam mi ngi fi nga xam ni moom lépp moom la moo waral coow li sallallahu alayhi wa sallam moo ni al waladu sirru abihi doom ju nekk yéeney baayam la la bàyyi yéene woon ci mbaax rek bare yaa na mooy feeñ ci jëfu doom waaye du farlu doom de ndax ne Saalum Diané nee na ci wàccam ñoo gën a sàggan ñëpp nee na moom day seetlu na ko ci boppam bu yëg ni dal na ko waaye farlu way juróom yi di bàyyi ali moo tax ñuy jéem a nab na bi bañ koy xoole diine ne kon loolu ñu ngi ciy sant way juri bu baax a baax di ko néew di nee na bokk na ci li ko yéem ci way juróom bi mooy pas-pasam tariqa bi yamalewu koog dara diine ji itam yamalewu koog dara nee moom mi daa génn gis ko muy dem jàkka juróomi waxtu yëpp day dem ci jàkka wasifa suba wasifa ngoon amul lenn lu koy teeree julli ji juróom ci jàkka ja wasifa suba ngoon ci jàkka parce que lu mu nawet nawet ne moom mi daan yàkkamte aljuma jot ci nawet bi onze heures onze heures demi danaan daara ji wàcc leen tey aljuma la balaa ñoo gontu dañuy def rek ñaari fala

kii mu ne yaa ma raw jiite may topp sa ginnaaw seetal loolu neen loolu lu yéeme nee na daal bu bàyyi yëpp meloon ni bàyyi nii li ma leer mooy yenn doom yi du am dëgg la ndax doom léeg-léeg bu naree jàdd yoon moom bàyyi jaral na

booy dégg tànkam buy ñëw rek da ngay julli. sinon budul lool yan bi ab yar la lay soññee. est-ce que. noonu la mel. waaye nag la dóoree. waaye fu la dóoree. bu dóor yi. dana la neexal ba nga fàtte dóor yi est-ce que. ba pare a na bu paree nag ni la. neexal la naan dama bëgg rek nga baax dóor yi du bëgg laa dóor waaye dama bëgg rek nga baax ndeysaan fan yii dee dégg naa ci waykat yi ci télé bi ndaw su ni xam ñoom dañu wax rek waaye leneen wax loo xam ne jël ko ndax njariñ la te njariñ moom ku mën a wax rek njariñ la mën nga koo jël waaye dégg naa ci waykat yu télé yi am ku ni boo xamee sa ndey xam sa baay boo waree baax xam nga ko boo warta baax xam nga ko am na ko ko wax fan yii dama dama taal télé bi doo nga yem ci la nee loolu yàgg na wax jooju moo ma fi jiitu maa ci door a jot dëgg la de tabaarakallaa nee na daal wax dëgg yàlla bay Ali jërëjëfati jërëjëfati bokk na ci ni muy yare Oustaz nee bokk na ci yoo xam ne du ko fàtte. du ko fàtte abadan du fàtte abadan. sa xarit. daan na ko wax ni sa xarit. bu yoree bitig. bu mu génn bàyyi la ci bitig. sa xarit sa xarit. bu amee soxna. bu boo demee seeti ko. boo demee seeti ko. fekkuloo ko. fa. bul toog bul ñaan ndox. mënoo upp mënoo upp nee na bàyyi danaan lox ndox sax bu ko fa naan Serigne Cheikh Tidiane si mu agsi noonu jërëjëf nee na moom day ba mu ciy toll woon man sama bàyyi nii moo gën a soppi yëpp dañuy jël deuxième. waaye moom mooy premier sax ah moo la defar bañ soxla la. dëgg la cofeel bi ñu ëmbal Oustaz Diané bàyyi même moo ko fa doomu baay amu bàyyi amul lu bare. lu dul fullaam ak jom du teggi benn wet bu nekk itam ñeme na koy dugg ci kër nit te borom kër ga bu ko gisee dana xam ni jàmm rek lay dox loolu bokkoon yaar ne tasa ci sës bu sëy ba demee ci loxoom bu demee def intervention rek day baaxal. du lim ma jur moo tax loolu du lim ko jur tax mu di ko wax de. ñi dëkk kàccoot te xam ñi dëkk te xam ko. xam nañ xam nañ ni lii muy wax ci bàyyam dëgg la. koo xam ne dafa tamit. koo xam ne daay réer. bokkam dem lu yàgg kenn déggu. dem su ci bu ci jógee. dana ko delloosiwaat ci ay bokkam. loolu cëram la. nee na moom bu sañoon mel ni bàyyam. nee na moom day yaakaar na ni mënu koo mel waaye yàlla nga ko mel baax na ñaan yàlla yàlla ba mu nekk ca moom bis fekk na ko daanaka lu mu lu mu tëjee néegam am ko gattax lay ràbb rek ba mu dëgër waaw damay sant ba mu ngeen xam rek. wallaay neen day sant rek. man ñu duñu dara li ma bëgg wax foofu li ma bëgg wax rek mooy man mii. neen li ma bëgg a wax xam naa ne te dafa ma tous ñoom ñaar la. kon jërëjëf ñoom yàlla leen yàlla fay. yàlla yàggal leen. soppi ñaan la li ma war si yéen. nee li ko war ci wayjur yi jàng nañ ko xam nañ ko te xam nañ ni matale wuñu ko waaye dañ ko matale ñaan incha allah ñu ngi ñaan sunu borom yal na leen yërëm yal na yokk seeni fan yal na yàlla wéral seeni cër barkeel njaboot yi ma ko bokkal yëpp barkeel njaboot yi ngeen am yëpp moo xam ñu góor ñi moo xam ñu ñi ñu jógee ci yow la moo xam ñu jógee moom sama moo xam ñi ngeen seq ñëpp ñoom ñëpp ñëpp presque sax ñoom ñëpp ñu ngi fi tey ñëpp ñëpp ngi fi rakkam yëpp ngi fi te ñoom ñëpp nag te ñoom ñëpp moom leen mobilisé moom bàyyi nii moo leen mobilisé ni leen amoo leen kenn ku dul Saloum nii looloo tax mu ni tey لوسيفر على دومي مو ام تاي دنيا بيسبي دي نيو لا ولا ري ييغا خامني نيوم ييغا خامني نيوم رفق دا فا ام صولو رفق رفق دا فا ام صولو استاذ نين رفق امغا يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم امنا اي صحابي امنا اي صحاب امنا رفيق امنا رفيق بني رفيق النبي رك بني رفيق النبي رك كان لا موي ابو بكر الصديق est-ce que mooy rafiqu nabi loolu mooy rif loolu mooy rif te dafa bokk ci sufiyanke wu dafa bokk ci sufiyanke wu am rif am rif mooy koo xam ne mooy koo xam ne day nekk sa seetu day nekk sa seetu nga nekk seetu nga nekk seetu moom moom nga tax nga tax moom mu tax nga jomb ñu wax dara mu dégg moom it mu jomb jëf dara mbaa mu wax ko nga dégg ko te muy dégg waxuma nag kuy wax rek ndax bëgg wax day wax ni ndara ku fa nekk ka nekk ndar nga xam ak mbaaxam nga ba bëgg baax nga ku baax nga dajal dégg nga ka nekk ndax. ka nekk ndax. nga yëg ak bonam. nga yëg ak bonam. ba jàppee ko bon googu ba ba jàppee ko bon googu ba tax nga bañ ko. bon ku bon la ko wax. waaye demoon waaye yow demoon ndax. moo tax yàlla ne. moo tax yàlla nii. yaa ayyuha alladina amanu. in jaakum fasiqun bi naba. in jaakum bi naba. fa tabayyanu. lu am loolu maa am sa mbokk ñi ne la Pape Sylla ñi ne la nii la mel nii la mel nii nopp folli leen nopp yi te fal seeni bët lu am solo lu la ne lim fekk jibi def looloo leer waaye liñ ma wax ci jibi nee na ngi sant jigéen ñi bu baax bu baax a baax bu baax a baax. Ah. nee na rifq yooyu nag. sa Pape Sylla ci la bokk. sa Pape Sylla bu ko gisee rek ree da koy jàpp. ndox fi mu jaar moom Pape te lépp rafet. ngeen di ànd di dugg mbay ga fekk fekk na ko ak jënd fonde nga teg suukar mu teg fonde loolu lépp feneen fekk ne imaam Seydou Diallo. Serigne Seydou Diallo. Pape Sylla mii sunu wëllëre la. Eh, Pape Sylla. Serigne Seydou mii. sunu wëllëre la. dafa am tout tànk fan yi est-ce que moom Seydou mii la ko tuddee. ah dana mos dégg loolu. wooma. ni ma kan nga tuddee doom ma ne ko Saïdou Lo mu ni ma man nii maam moom yi te wax na dëgg ndax màggat mbeng mii jur Seydou Nourou keroog bañ koy takki benn mbokk ko benn mbokk nijaay a waroon dem tardé bàyyi màgget mbeng ne ni ki may bëgg a may sama doom ji. te xaw ma ay mbokkam. su ma xamul mbokkam. su ma ma ko ko may. laajuma ko dërëm nag. waaye ay mbokkam moom bëgg naa leen a gis. Pape Sylla nii moo fa taxaw. man mii may mbokk may deretam. ni goroye kii ngeen di may jabar may mbokkam may deretam. te Ndakaaru gii moo ñu boole. mu nga mu nga mu nga fa la juddoo. si la si Rimbax la juddoo. Diané nag nee na ko Pikine nga juddoo. ngeen xool fu mu nee na Rimbax mooy cosaanu baay yàgg waaye mi ngi juddoo Ndar ñetti poto. Pikine ma ca Ndar ca ñetti pot ya moom mu juddoo kàccut day nekk sori yoo ñu daje caaro yi. ci daayira yi ci la ñu xamante ne. Seydou Diallo mii nag. Seydou Diallo mii nag. Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane. Cherif Cherif. moo ko tuddee doom mii moom ci boppam. moom ci mu ñëwee. nee na keroog bi mu yëgee turandoo yi dafa sax yéemu. waaye la tax xam ne. waaye la tax mu xam ni. Cheikh ak ko tuddee. Cheikh ak ko tuddee. mu woowee sama papa wi wax ko ko. mu ne ko tuddee. waajur wi ah, doom ji ki nga ko tuddee man maa ko ko tuddee. daaw daaw. ndax daaw. biñ jeexalee. jeexalee waxtaan wi kat mi yëgee. liñ fi doon lekk. liñ fi doon lekk. fi doon naan. ak xaalis yu bare moom seetu Gueye moo ko joxe woon bi ci topp mu jël fanweeri junni suñu dëkk suñu rajo koñ suñu rajo jàkka nga xam ne sama papa mii fa lay noddee Seydou jënd rajo jox leen ko ñoom waa jàkka ja ca dëkk ba ca dëkk ba fi mu ne nii rajo yi seetu lañu takk ci jàkk ja di ca nodd ak di ca wasiir sëñ bi jërëjëf. loolu nag alal la lu mu làmb nii poosam la joxe ko. mais li ma gën neex ci moom. li ko gën a neex ci moom. moom mooy jikkoom. jikkoom. macha allah Seydou. ñii sas ne na ñii ay bokkam la. ay doomi bàyyam la. Hmm. est-ce que. est ce que. na nekk doom mën na nekk rak. itam kàccul la def. dégg si Serigne Cheikh Tidiane si. kat mi yu bëree bëri bëri. boo koy waxtaan tey. moom itam ci rifqi la bokk. ci ñi mënta ñàkk la bokk. maanaam ñi nga xam ne da ngay xool ci ñoom. ñi nga xam xool ci ñoom. di nag sëriñam. Sertidane Touré dindi imam babakar silla sama bos yalla nako taxaw wax ne ko beug muru masallah